mbokk yi asalaamaaleykum wa noo ngi bëgg a yëkkati kàddu yu néew ci mbir mi nga xam ne moo xew ci suñu bis bu màgg bii nga xam ne ba ñu ko Cheikh Ahmad Bamba présenté daf nañu nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an maa ngi leen di yëgal ne ngërëm màgg lii ma am liggéey bu rafet bii ma liggéey laataa mu ci jële ndam lu toll nii lu ne daj naa ko ci mbokk yi mbir xew ci moo xam ne nag noppi wala ku ëpp na ndax man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi alayhi salaatu wasalaam nee na ku gis lu ñaaw lu jéggi dayoo na nga ca taxaw alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko nuñ cay taxawee mu ne may naa leen ñetti sens benn ku mën a yëkkati sa loxo taxaw ca jàmmaarloog moom nanga ko def te nit ñi mën nañ ko nag te bu kilifa yi waxut mën nañ cee yegg ñaareel ba mooy fa illam yastati' fa bi lisaanihi mooy ñu def ko verbalement mooy li ñuy def wax fa illam yastati' fa bi qalbihi wala ñu mitlu ko suñu xol te loolu dañ ko ci bëgg a weesu ndax ñi ci ñi ci war a njëkk a wax dafa mel ne dañuy tànqam lu mbir yi te yoonu murid wii dafa am lu mu baaxoo mooy ka jiit day jiitu ñu ci topp topp ca bu demee ba ña ca gannaaw bëgg a jiitu nag te ña jiitu waxuñ leen yéen wur leen a jiitu ah faaw nak ñi ci top wax leen ne nee eh, kaa leen topp fii te li nga xamne mom moom la Aida jallu di def kilifa yi war nañ ci téla wax ndax yoon mu xamuko a Cheikh Ahmed Bamba ba mi génn aduna ca wam sa sin boba a Cheikh mohammed mustafa magutoon ci ci ci wa kërëm boba soxna fadja mi ngi fi won waye ndax neena damay doon khalifa wala ndax damay tok toogaay suñu tubaab nangam dedit yef yi euh, bo démé ci téré da nga dégg ñu jigéen duñ ko fal mukk mu nekk ab yonent maa ngi ci bëgg wax ne euh, jigéen toppe la gën a man kon nag lii bu demee ba nga xam ne jib na te su doon ne soxna su mucc ayib ku dund diine ku sell moo koy def sax ñu ne waaw waaye soxna soo xam ne moom ci jëmmam rek munkar la ndax bu waxee mu fenca ba nangam fenc maa ngi ko dégg muy am ko muy garanti naan ko balaa diwin di nga xam ne nàngam di jox loxo góor di def la alayhi salaam waxoon ne am na ci sama xeetu ñaar ñoo xam ne gisaguma leen waaye safara lañ jëm bokkoon ci kaasiyaatun aariyaatun sol yére ba noppi sa yaram mu nekk te moom da koy def bu ñu xoolee soxna yu baax bu ñu xoolee ci nataali soxna jaare wala naa nga doy gis sol lu jot ba noppi jëlaat ay siiru rabal teg ci seen kaw loolu nag moom génn na ca ba noppi ñu bëgg a seetaan lii dama ne na ci kilifa yi wax nañ ci jóg te jéem ko arrêté ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom nag lii jaaxal ñëpp mooy ana lan mooy sababu ñu ànd ak moom waaw ndax dañoo bëgg yegg ci yàlla ci ànd gi ñu ànd ak moom wala ndax jaxasoog jigéen doo nga leen ci jublu wala ndax dañoo bëgg lu def ci seen poos loolu tamit problème la ay question la yoo xam ne mënee su ko ñoom rek ko mën a tontu ndax koo xam ne yow wóor na ne kooko jëfeewut ndigal bay dox di digle nga bëgg ànd ak moom naan da ngay ci ay ndigalam loolu dama ne caaxaan mënu ko weesu te dama ne euh, suñ tubaa daf ñoo teeloon a wax ne xultu ca masaalikul jinaan xultum yooyu leeraloon na ko xultu fa man yurit salaaxal amali ah fa leer kanal li awliyaal kummali suñ tubaa nee na ku bëgg jëf-jëf ju yiw jëf ju baax na dem ci wàllu yu mag ya waaye ñëw fekk koo xam ne suñ tubaa neewoon na la bul ko bul ko jege ngay ànd ak moom di ko jox loxoo ka riisoo ante ka nangam ko defee fi muy daagu ci diggante góor ñi kooku dama ne seytaane piir la te war na noo wax ci moom ndax yoon wi méritu lii te suñ tubaa liggéeyu ko ndax ne liggéeyam bii laataa mu ci am ndam lu rëy lii lu ne daj na ko ci suñu tubaab waxoon nañu bu yàgg nañu euh, wajtani bil xoltata wal mubaashara li aj ajnabiyatin maal munaadara nee na nañuy jaxasoo nañuy moytu di jaxasoo ak jigéen ñi nañuy moytu di jaxasoo ak jàmbur yu jigéen ñi nañuy moytu di toog di xoolanteeg ñoom ndax nee na innal ajaaniba la dal ootaani wa gayriha xabailu cheytaani nee na jigéen ñii nga xam ne jàmbur lañ ci ñun nee na foo dem ci réew ya ak fu dul réew yi it ñoom ñooy buumi seytaane yi ku fexe ba laxasu ci ñoom buñ la diree seytaan lañ jëm ak ñoom te lu mel ne classe ak Aïda Diallo gii buñ leen seytaanee safar lañ jëm ak nit ñi suñu doo waxaat na faneen naa il kawaaiba wala xawaanee waatazil nga ne ko ahmadu mu ne intat na min ha min radan laa tas damu kon koo xam ne daa daa alaku di alage buñ ko seetaanee àddina tukki nañ wax ci moom naayil ajaani ba rumit tazawuja góor ñi ànd ak moom it nañ dégg leen suñ wax nañu moytu jigéen ñii te ñu dem takki soxna moo gën bànnite gu métti gi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg a dund ndax suñ tubaa kat sañ bay jeex dafa am lu mu waxoon wurus lu sellul bokk ca xaalis lu sellul bokk ca bàmba ku baaxul bokk ca nañ bàyyi fa murid du fo te suñ tubaa it la mu waxoon léegi tey ñu yegg ca ndax lii ñu gis li gën a yokk yëf yi sax mooy weñ nga dafa bañee ca mbàññaxaan ma yëf yi dafa yàgg te ñu waroon cee wax te waxuñ ci ndax suñ tubaab waxoon nañu ne bu ngeen demee ba gisatu leen lu dal seenam xel def leen direct ci la alayhi salaatu wasalaam jàngale woon te fi mu ne ni ñi nga xam ne sax ñoo fi nekk di góor sax seen taxawaay dafa des ndax ñun ñëpp ay responsable lañ bu nit ñëwee rangé wu ci sa gannaaw ne la mbàkke dama bëgg ànd ak yow nga dimbali sama diine tey du toog ak yow mukk ba nga wax ko lu aju ci diine du waxtaan ak yow mukk ba nga wax ko lu aju ci diine du lay woo jot téléphone ba nga wax ko lu aju ci diine bu ñëwee gis la sax du gis ci yow diine ah loolu war nañ koo xoolkat suñ tubaa kat yeewi woon nañu suñ tubaa di moom kenn kenn mënu ko mënu koo layal suñ tubaa moom dafa set wecc ndax la muy wax wax na ko moom leer la muy bind bind ko la muy jëjëfandi ko waxoon nañu ne illam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nasu xiyaaru salaf nee na boo xoolee génération yi gisoo ci looloo doy na nga doy looloo na nga doy loolu la fa salaf yi indi mooy li nga xam ne gars yu baax yi jàngale woon nañ ko te loolu nag ñu ngi ci bëgg yegg te soxna Ayda Jàll la ñuy wax ne ko na ragal yàlla te mu dellu ci yàlla na dem musóoru ji te muuru ji te muuru awraam yi jigéen su dee musóoru mbaa muy muuru faw mu dem mu jur walliyu woy dem ñor loolu la si Musaa Ka jigéen su dee musóoru mbaa muy muuru faw mu jur waliyu muy dem ñor